dégg nañu Abdoulaye Diouf Sarr mu ne bëgg na am na ñu bëgg président jiital Amadou Ba ci jamono joojee gis nañu président conseil économique social ak environnemental mu di Abdoulaye Daouda Diallo muy xàll aw yoonu boppam di teg ay stratégie ba mu jaral ko mu solo dàllam di def yu tournée ca kër kilifa diine yi ca Fuuta ci ñu bëgg wutu Macky Sall l'observateur nee nañu ñoo nga ciy dégg meneen Amadou mu bokkut ak Amadou Ba Amadou Hod la envoyé spécial bu président ne li ñu bëgg mooy parrainer ab candidature mbiram président Macky Sall mi war a tànnal gaañi candidat le témoigné mi ngi ñuy wax ne su moytuwul doy nga ñu gi ko gaañi wax piège la nar doon ci moom li ñuy ragal mooy Macky Sall am ku mu tànn am ñu gedd témoigné mi ko bind teg na ci di laaj est du ci élection présidentielle 2024 ci la APR nar a doxee tas Walf Quotidien nañu li waa Benno Bokk Yaakaar mooy Macky Sall tànnal leen candidat boo xam ne ñoom ñëpp dañu cey juboo waaye su Macky Sall ab ne du ndax bari nay candidat Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne candidat bi Macky Sall di tànn ndax su ko tànnee dana ko jàppale ci campagne ngir mu falu sursoi nañu lu mën a nekk la waaye Macky Sall dafa teg ay condition nee na waa këram yi bu ngeen féewaloo tasaaroo kenn ku nekk ci yéen féel yoonu boppam bëgg a ber langoog boppam bu leen xaar mukk ci ma leen di baataral campagne ndax am na bëggee ma jàppale leen ñi jàpp aw turam nañu xàmmee kanamam Anta Babacar Ngom jàkk doomi Pape Babacar Ngom ji mi ngi daanaka ci mboolem yéenekaay ñu xëyandool Tribune La Sénékaay Le Témoin L'Observateur Quotidien Walf Quotidien ak Enquête yéenekaay L'Observateur bind ne Anta Babacar Ngom jàkk samp na am dëndëm nee na candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm février ci déclaration bi mu def moom présidente bu mouvement alternative citoyenne ànd liggéey namal réew mi ak waa réew mi bés bu déggee madame la présidente ba di fa xamle ne bokk ci luy doxal réew mi bëgg-bëgg la bu mu màggaale moom Anta Babacar Ngom anki dina tudde ko profession de foi ci xët mu njëkku la tribune mu fay wax ne doonul candidat bu ñëw ngir di def ba defaat li ñu fi def bu nuppi nee na li ko indi mooy tabax lu wér ànd ko ak ñëpp barça wala barsàq di mbëkk mi jaaxal ñëpp libération mi ngi ñuy wax jéyee jeneen ju jur a ba këpp keroog àllarba ay boori bël ba ca ndar juróom fukki doomi aadama ak juróom benn ñoo ne woon ca gaal ga am na juróom benn nit yu ñu seppee seenu néew ca géej ga am na ñeent ñu ñu jot bu weesoo ñooñu yéenekaay bi nee nañu ñoo ne woon ca gaal ga yépp kenn xamul fan la ñu féete jamono ji liise ko bind ne mbir yaa ngi gën di doy waar ndax ñoo ngi wax ñetti gaal yu jóge woon Sénégal doon dem Espagne te ñetti gaal yooyee ba léegi kenn gisu leen ñu gis ci l'observateur ab enquête bu mu xëy bi mi ngi ñuy xamal ne bi at mi ak léegi maanaam ci 2023 gi junni doomi Sénégal yegg nañu ci Espagne te ci géej gi lañu ñu jaar am na 703 personnes ci ñoom 47 ca la bokk limub doomu aadama yi jëloon gaal gi doon dem Espagne te mujj réer ci géej gi l'observateur ne nañu ba léegi kenn mu ñu laa wax ñaata lañu. abonné ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew.